léegi damay ñëw ci dernier point bi euh, mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama mu nekk combat boo xamante ni nii taxaw def face to face wala jàkkaarloo présenté wu sax xaw na ñëw të ci diggante ñaari bëri ndax nga gisee boobu combat. loolu neexal la rek xaw a tëggi si ñoom la rek mais suñ bëggee day am. Mhm. président moo gën a metti la bu bëggee jaal day jaal. Mhm. Ama nit la Modou nit la. te Balla Gaye Balla Gaye Modou Lo. tey maa ngi nii ñëw fii. Mhm. boo leen convoqué woon fii tey jii kenn yëgut ñëpp dinañ ko seeta. Mhm. am déet. dëgg la parce que ñoom ñaar ñëpp waxaale nañ ba jiboo kenn xamul ñaata lañ waxaale de. Mhm. mënoon nañoo gisee ñoom ñaar ñi toog nii jàkkaarloo journaliste yi wër la ñun buñ paree seeta. du neex comme que bëggoo ñu jox ñu bëgg. yéen bëggu leen ngeen gis ko de jaxran ñu wal leen ko télé. mu neex commencé mais dañoo bëgg mu gën a riis moo tax bu ñëwee ba si biir di ko dagg di ko dagg di ko dagg ba nga xam ne da koy yàkkamti togg ko mu ñor kooku tamit li liggéeyu nit na ko laala te bul fàtte ne dafay gëj mais ndaanaa a ngi noonu ku jara ñaana a ngi noonu tey daana ma wax naa ma jën yi géej gi nañ ko def attention bu ñu ci deful attention bu ëllëgee dinañ bëgg jën mu tëju ba mu koy wax xam kañ la l'an 2002 moom mën na see bàyyi xel te ko doon see te dem nañ ba jëmmi jamono pour moole am jën rek problème la. ma ne mhm. cee ndaanaan man damay soxla ay wax yoo xamante ni dafa am solo. Mhm. man du ma wax ak bojo bojo yi nii nii di wax ci ginnaaw de li jëntuwuma leen kan moo nekk si raay bi di wàcc. kenn mbër du geesu. Mhm. Balla Gaye fa mu la amee problème muy ba mu njëkkee ne day jëli Bombardier yi première jël ba lan la Bombardier def ba mu koy jëli. bu amoon staff bu baax dëgg bu mu déggal dina ko jëli ku jël ndaare loo siy jël te jël pe. Tyson ba mu neex na ma xale yi moytu daanuwut. Yékini ba mu ne kenn mënu si man dara daanuwut. Mhm. baalo ba mu ne dama koy seetale la de. laam bi daaw laa jël rek indi si ju am xam-xam de li xew suba yàlla rek moo ko xam. mais ñëwul ma ci ñëwul ma ci ci Modou Lo Ama Baldé. oh kooku ngeen teg seen wàll foo jaar cing cing yi bari. mu Ama mu tuus Modou tuus boo àggul foofu ku ko Costa juum. mbaaru ah ku ko ñem na wax. du salbe du ñeneen. loolu il faut arbitre ne ñu tuus ba pare nga doog a xam kan mooy daan Balla Gaye bii ku la ne woon dañ koy daan da nga koy weddi. Mhm. mais ba boobu tuusee gars yi tuus ku ne lagg. ah ku yàgg làmb xam ne ku la mën waaye man boobu laa gis bomb xam ne ay kii bu gasee tànk kenn du ko daan ba sawaay riig tànk yi mën na ko si fini. Balla dafa waroon jàng rapidité dugg si gaar bi tooñ ko ñaari tooñ daw génn tribune bee koy yuuxu mu fàq buy fàq day ñëw ak laawam yi nga def demi flexion tibb si feebar bi bu dee si la de. am na fu mu lay àgg docteur du la faj maa la wax lii man làmbu bëre si buru la am na fu mu lay àgg docteur du la faj loolu paay naan ponkal xaju si yeel mhm. man ma naan si buru la am na fu mu lay àgg dee rek moo moo la ciy génne moo la ciy génne mais Ama Baldé abi sifflé nam doon def mu def ko tibb suuf dox ci sa kaw waaw bu ko defee ci kaw Modou Lo noo ko naa gisee mooy intérêt mooy boo calculer ak moom si suuf lay xool di dóor si kaw maa yóbbu les mu def ko ko doo ko mu daanu xool si suuf les defe ne day caaxaan mu ba bi mu yuuxoo bi mu jógee bi mu ko fëggee épercule daa sa waay daa wàcc loo te du defu ko benn yoon moo kayre nu mu def. Mhm. si suuf la xool dugal force frappe mu jàpp. kon kenn du ñëw di calculer moom amaa na tibb suuf juut juuti. waaw waaw latéral dam yee ñaar laa si soxla ba ñett mu song ko lu mu am jël. mais bis bu taxawee ne day calculer moom benn benn ak moom la dal Balla Gaye koy dal Bombardier du ku ñuy benn benneel parce que dafa diis. Mhm. da ngay ñëw indi lu gaaw. di ñam di génn di ñam di génn boo ko tooñee ñaari tooñ mu maamu Eumeu Sène nu mu def daa fatt gauche liir droite bi mu demee ba xam ne droite bi mënut a ñàkk da jël bàyyi ko mu ñëw mu rës bu sëggee du siggi ponkal la du gaaw a jug. jug bi day yéex. fu mu moo giri ba na la giri da koo tooñ daw génn. moog Balla Gaye numéro un. da koo tooñ daw jël tànk ba dëj ko. moog Eumeu Sène. noonu la fay demee daa jël ku bàyyi ko mu ñëw mu rës mu mu war ko. Balla Gaye ñëw ne day benn benn ak moom fan la. si ñu ko daan ngay xool bu ko bañ parce que mbër bi da nga koy liir doo ko bëree moom entraîneur yi yu match yi dañuy jikki ji ba si yàgg soxla bi ñuy def trois attaquants la ñuy yóbbu si kaw am na wala amul. Mm-hmm. pour bëgg bi mais suñ bëggul bii bëgg défendre benn attaquant la ñuy sànni def 4-4-2 sëlëx benn. devant sax ñu def cinq défenseurs merci. bala boo yoree ponkal mu toll nii Bombardier da ngay indi lu baax teg ko lambu kër su la waaye du lambu baala. léegi euh, avantage Modou Lo ci Ama Baldé lan la war a doon. mooy diis gann. ma Modou Lo waaw taxaw xaar ko mais ni ma gis mu jéem a oyof bu ko jéemee oyof day sonn parce que Ama bëri na doole de te wàññi na Ama ma nga gisoon biceps yi ngand ak léegi est que bokk na. te dafa am benn wax bu wax bu Ama bale di wax chaque chaque instant. Mhm. bëriwoon nañu. Mhm. mu daan ma jël bu gaaw. Mhm. bi may doog a dugg ci làmb. waaye jël boobu moo ma def làmb moo ma daan jël bu gaaw jël bu rëy. chaque jour Ama Baldé day fàttali jël boobu. Bombardier kii Modou Lo ku mënta hmm. daan amut. Ama na bàyyi xel ne ba léegi Modou Lo mën na kaa daan. Hmm. Eumeu Sène bi muy ñëw si Modou moo gën Modou Lo palmarès téeméeri junni yoon. daa daan Balla daan la de daan Gris Bordeaux. Hmm. Modou deg mu des si mu ne da koy seetali te Modou ane boobu Balla Gaye ko daan. mu nekk si ay jooy yu dem si Baye Mandione jël fa benn këcëg këcëg ñëw taxaw mu nekk si jafe-jafe yu métti bi mu amee Eumeu Sène da kaa daan. jour boobu la ëmma si la Modou di génn di bëre fas bi boo fàttali ko te buntu këram ñu koy génne mu nekk si fas bi di def nii def naa mhm. ah ba jour boobay combat bi mais gis nga bi mu ñëwee dañ kaa daan moo Modou ku mu mënta daan amul bi mu duggee si poids lourd yi ñu bëri dañ ne woon du sori ma na mhm. leen bañ a sori du ngeen laaj fu mu jógee ba ñëw avant ngeen di wax dem yàlla moo ko am mais di ngeen di xool fi mu jógee ba ñëw walisam ku ko gën a riis walis amul fenn moom Modou mhm. kenn rek bu ko daanoon toj la am muy Balla Balla Gaye kenn rek moom it bu ko daanoon toj làmb muy ëmb seen muy ëmb. dëgg neexul. mënta ëmb nopp man la làmb da ngay laajte wala da ngay leerlu.